di wax asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatoo nee na ñu ngi jotali kàddu yoo xam ni nag nee na kàddu yi ci jiitu mooy jéggulu ci kàddu yi ñu yëkkati fii ci sunu kanamu kilifa yu tedd yi ndax ndaw lu nekk dara jëy ko commune la yor te Cheikh Bassirou Mbacké moom sëñ Abdou Khadir mii moo yor baatub Serigne Touba bi di ndawul Serigne kon Serigne Touba moo fi teew fekk si fi njabootu Cheikh Ibra Fall gépp kon bu nu yëkkatee kàddu ci seen biir day mel ni waruñu waaye ndigal ci amul it sëriñ bi nee ak topp la waaye ñàkk wéy ndigal moom sëñ Fallu ni nee na ak mooy la kon nee lii mu yëkkati ak topp la ci moom. ndax ndigal moo ko wax loo kon Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdou Khadir ci ndigalul Cheikh Modou Moustapha Fall moom Serigne Modou Mbenda di maam Cheikh Ibrahima Fall moo lay jottali ay kàddu yu nuyoo kàddu ak kàddu ngërëm yoo xam ne boode na ko kàddu yu waa kër Cheikh Ibrahima Fall jëpp di ko teg ci sa loxo. nga tegal ko ko ci loxol jëwriñu sëriñ Tuubaa ji muy Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké sëriñ am di di wax ni mi ngi yeesal ak njëbbalam moo njabootu Cheikh Ibra Fall jëpp fas yéene nag fa magam yi jaaroon bu waajuram yu baax yi jaaroon fa maamam di jaaroon fa ak Seexul Xadiim foofee la sëriñ am di Fall fas yéene jaaroon sëriñ Mouhamadou Mountakha waaye nag ànd ko njabootu Cheikh Ibra Fall jëpp nee mi ngi sàkku nag Cheikh Mouhamadou Mountakha dellu gën a ñaanal njabootu Cheikh Ibra Fall yëpp ak murid yëpp ak soppe yëpp ba li Sëriñ bëgg ñu man ko ndax saa suñ ko mënee nee na dinañ ko jëfe kon nag ñaanal murid yi li sëriñ bi bëgg ñu man ko nee na ñu ngi jébbale boppam ak njabootu Cheikh Ibra Fall yëpp bàyyiwul kenn góor ak jigéen mag ak ndaw. ak mboolem waa kër maam Saliou Fall. bu nee kër maam Saliou Fall sax day mel ni daa doon ñaari kër. waaye kër Cheikh Ibra Fall moom génn kër rek la. bu nee njabootu Cheikh Ibra Fall. Serigne Fallou li nee la waxaale nañ ñëpp. nee la bàyyiwul kenn. waaye boo tuddee par kenn. day mel ni da ngaa tudd kii bàyyi kii. nee na kenn desul de ku Seex Ibra Faal jaboote ñëpp teewoon nañ ci liggéey bi nee na ku ñëw it yabal nga sa doom wala sa jëwriñ wala mbooloo ma ñu ñëw ci ndigalu Sëriñ Tuubaa lii nee na ndigal nag danoo wax ni mooy njariñ te ndigal mooy tata tata nag sëriñ bi nee na ci waxe wolof dan daan wax ni dan daan wut ay bant sampal ko ba fekk du ñu mën a dugg wala bala fetal wala jaas wala dara mu mel ni kon ak rawtukaay la ci ñoom waaye baatum ndigal nag mooy rawtukaayu murid yi nee na bu ndigal jógee rek nee tëjug na dara wala lu ya. murid dara nee bu ñu mënee dara daal bu noonu saytaane mën a dara ñun murid yi dañoo génn baatum waaye bu nekkee ci baatu ndigal seytaane du man ci ñun kon sëriñ bi nee na nan daw wuti ndigal yi xam ne fa la suñ lépp nekk nee na liggéey bi nga xam ne nag moom la sëriñ Mouhamadou Mountakha jëloon jox ko murid yëpp waaye Cheikh Ibra Fall nag da ji waaye lii kat ku yaakaar sëriñ Touba nee na nga bokk kenn desul de Touba moom sëriñ Fallu yàgg naa wax ni Touba taxul li fi nekk ñun murit ñoo ko fi def kon ñoo ko fi dellu war a jëlewaat ndax borom moom na ko defaree moom ba mu sell sell gi moom kanam lay jëm rafet gi kanam lay jëm kon lu ci takk kaw nee na ñoo ko ci def kon ñoo war a ñëw fas ñoom di ko dindi dindi gi itam njariñ loo xam ni ginnaaw ndigal la àndal lépp ak ci biiram am loo xam ni nag mënuñu ko ñàkk ci yàlla suñu borom. muy ngërëmul yàlla sunu borom te mënuñ sunu koo may duñ ñu ko abal duñ ñu ko sarax dañ ñu koy jaay rek li ñu koy jaay nag mooy digal ñu ñu def ko ñu tere ñu ñu bàyyi ko loolu ñun ci la ñuy jëlee ngërëm ñun. Serigne Touba nag jox woon na ndigal loo xam ne ku yaakaar Serigne Touba yaa ngi ci biir nan ñëw leeralal ma barabu Touba bii fu mu nekk. rawatina ak Baye Fall ngay góor baa ngay jigéen ñëpp bàyyi yitte yëpp ñoom ci li sëriñ bi bëgg parce que yéenee def nee def nañ ko nag ba mu àgg bis ni que tey ba mel na nag na ko borom bëgg woon def nañ ci lu bëree bëri waaye sëriñ bi daa wax ni ku def ak bëggam saa borom defal la sa bëgg te def nañ bëggu sëriñ Tuubaa gi kon nañ leen rafetal suñu njort bu baax xam ne ñun tamit li ñu bëgg. sëriñ Tuubaa dina nu ko defal sëriñ baa ngi ñaan nag mbas mii ci àdduna te nekk ci xel nit ñi nee na nan dara suñuy xel ñun mi ñun nee na nu mbas la lépp dina jeex tàkk ci barke borom bis bii nee na bis bii ñu jëm sëriñ Tuubaa yàlla ñu si yóbbu ak jàmm waaye nee na duñ ci dégg genn lor te dinañ ci dégg rek jëpp njariñ it yàlla nañ ko fekk ak jàmm daañu ñaan wax leen amin nee man ko ko mën bëgg rek ndax waxoon na ne kat képp koo xam sama mbég sa mbég la bés bii bu ñëwatee nag ma sant na yàlla sama borom sant nag Serigne wax ni ci na ni ba ci lu ci man na ma ko ci defal sant na ma yàlla sunu borom loolu nag dafa bëgg ñi am kartan ak ñi néew kartan ñëpp mën a bokk ci jant bi ndax lu nit néew néew doole xanaa di nga war a mën a am dinaar lu nit bari bari doole xanaa dina la jaral ji lépp kon diggante bi foofu nga mën fi dal na gaañi kon nañ leen jéem dara nag ginaar ci giréem lu ci waay man na ko sàkku te la ca gën nag mm. nga jox ko suuf sëriñ waaye rey ko sa kër yow dong lekk ko loolu lekk yàpp dong la nan jox sëriñ bi ba noppi doo nga dem ci kër yi ndax Seex Mamadou Falilu moom moom moo dala Fall mas na am ay xew yu xewul ca kër ga mu yónni woon ko ay siyaare ndaw ñi nag mënu leen damaa bëgg bu ngeen demee ngeen sëriñ bi damaa bëggoon a àgg sangu ci ñëw nga xam ne moom sëñ Modou Aminta daaw dem fenn ci tàggoowul sëñ Mor Talla Fall li ndaw la bu ngeen demee nee ko dina mën a dem ci ñëw waaye nee ko bu demee nag na soññi ñëpp ci tabaski yii ñu jëm te nan fàttaliku baatum njëbbal ba waxoon ak sëriñ bi ak àllaaxira ja taxoon ko. kon nag ku ci amul lu dul mel num xar fab ko jox ko sub sëriñ dem ca taaba di beese ji loolu la ko sëñ Mor Talla Fall digaloon xalifa Thierno Fall bi waaye ab Baye Fall bu tabaski ñëwee mu jël am xar mu jël ñeent fukki junni ci joxul sëñ bi ginaar xam nga ni yàpp dong nga lekk waaye tabaski woo am na ñu fi toog ñoo ko moom kon nanu waajal tabaski yi màggal gi nee nañu ñu ñëw nee nañ ko waajal bu baax a baax liggéey bi nga xam ne moo ne fi dajale tey ci kaddu Serigne Cheikh Ndiaye Meng nga xam ne mooy jëwriñ ñi Serigne Amdi Fall mi maam Cheikh Ibrahima Fall tey dan koo woo mu ne dafa am yitte yu muy dox waaye mi ngi ñëw Cheikh Saliou Fall min daan wax looy itam jot na ko muy nen ko dimbali ndax daa mel ne am na naan waaye nag Serigne Cheikh Mbacke Fall mi ngi nii teew ñu ni ko woy Serigne Cheikh Astou Ndiaye Serigne Siri Fall ngi nii teew moom Serigne Modou Moustapha Serigne Cheikh Mounda Fall ngi nii teew moom maam Saliou Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne maam Cheikh a nga toog moom Serigne Assane Fall ak njabootu Serigne Assane Fall képp kon kenn ko nekk ñëpp mel na ni Serigne Cheikh Ndiaye Mbengue ni mu gën woon a teew am nañu ko fi teewal. waaye bi ñëwee nag sëriñ Seex Asu Njaay mii moo ko ni naa ko jox jël kàddu gi kon nee na ci kàddu sëriñ Seex Asu Njaay lay waxee kon sëriñ bi nee na nee na mi ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp tey ñaanal ñëpp sunu borom guddal fan yi bu baax te wéral yaram yi bu baax a baax defal ñu nag ay xewul yaatu lool ñun mën a jëkkoo baatum ndigal bi ba ñu sëriñ Tuubaa bëgg ci ñun léegi ñun murid yi ñu mën ko defal ko Serigne Touba nee na ñun nag suñu jàngoro jenn jàngoro lan am mooy li Serigne bi bëgg te mënuñu ko loolu mooy suñu jàngoro Fallou Galassine la waaye li Serigne Touba bëgg bu ko murid ma ne dara méttiwul kon yàlla na ko mën ci dara ñuy Cheikh Ibra Fall kon Serigne bi nee jërëjëf jëf nee na kàddu yi daa bëggoon sax du tudd kenn. waaye boo tuddul kenn day mel na ngaa tudd kii bàyyi kee waaye Serigne Amdi Fall moom Serigne Moustapha moom Serigne Modou Mbenda Cheikh Amdi Moustapha moom Cheikh Modou Mbenda moom Serigne Modou Mbenda di maam Cheikh Ibrahima Fall kàddu yi muy bëgg a wax moo koy jottaliku ci mbooloo mi ci lekkam yi ak jëwriñu maamam yi kon Serigne Cheikh Ndiaye Mbengue jëwriñu Serigne Modou Moustapha Fall. di jëw nañu sëñ Modou Mbé am ni Modou Mbé nag ak mboolem gi sëriñ am ni xëri Fall ñu ko wax am ni Assane ak mboolem waa sër kër sëñ Assane Fall gépp sëriñ Aliou Fall ak waa kër sëriñ Mbacke Fall sëriñ Ngounda Fall sëriñ Ngounda Fall ak waa kër moom Saliou Fall sëriñ Abdoulaye Kaya Fall ak waa kër sëriñ Mor Talla Fall gépp sëriñ Mor Talla Fall ak mboolem waa kër sëriñ Abdoulaye ak mboolem waa ñu ne ko wax sëriñ ak waa kër sëriñ Mor Talla Fall mu sëriñ Bassirou Fall sëriñ ak waa kër sëriñ Abdou Sakkour Fall sëriñ ak waa kër maam Saliou Fall gépp ak mboolem seex yi seex Ibrahima Fall seexaloon te seeni doom nekk fi wala seeni sët wala seeni jëwriñ sëriñ bi ne la bàyyiwul kenn mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp ku dégg surtout ci dégg ko surtout itam ñëw nga te kaay leen wuyu ju doon mooy kaay leen rek kon koo xam ne mën a ñàkk te wëlu si woon nga li Serigne Touba doon jox murid yi yow xam nga ni jot nga ci alhamdulilah Serigne bi moom gëmmul nag ne la wul du nax kenn waaye gënul koo nax kon lu fi waay ñëwee woon ak aajo joo fi mën a indi moo xam ci yaram yi la moo xam ci poos yi la moo xam ci yitte jamono ji ju mën a doon Serigne Touba dina ko faj amin kon nañ ci rafetlu suñu bët bu baax a baax nee na nag bàyyiwul kenn. nee dina am jàmbaar joo xam ne nag doom la waaye ab soppe la muy Serigne Cheikh Ndigal Fall nee ñii de daa bokk ci ñu ko daan teewee waaye ay doomam ak rakam ak murid yi ñëpp nekk nañ ko fi kon nee na jërëjëf jëf sëñ baa ngi sant ñëpp day gërëm ñëpp kàddu yi nag nee na sëñ Fallu ndax lam nañu leerul te xam gi yaatuwul waaye bëgg gi moom toll na ni yoon wi kon nee jërëjëf jëf nee ñu ngi sant ñëpp nanu waajaat nag déwén ak jàmm amit bu nu ñuy bett mukk nag bu ndigal jubatee ni ñëpp jub ndax bu ko kenn di wuute ndax sëñ Modou Fadilou Fall nee na kuy wut du wuute ndax booy wuute nee na léegi da wut romb la kon neena bu ñu wuté wote yi kon nañuy teew té teewaale njaboot gi bu baax kenn ku nekk la nga doon ñaan Serigne Touba muy saw borom may la lu gudd wu and ko wër ak man kon la bu ñu ñew man nga dañ koy indalé li ñaanoon yàlla ba yalla may ñu ko nañ ko demee Serigne Touba ko am ab seret bu ko xeeb bu xeeb sa auto bul xeeb sa fas bul xeeb sa bop bul xeeb sa machine bul xeeb lenn loo mën a am lu may am rek liggéey bi nag ni ko jàppee sëriñ bi gis na ko bu baax borom oto yi borom sareet yi borom burbeet yi ñi daan togg añu di indi ñi daan tàngal kafe di indi ak teewul yi nga xam ni gars yaa ko doon joxe mu dem ci gasoil yi ak lépp loo xam ne ko indi muy njëriñ ci liggéey bi def nañ ko ci ba jeex. bàyyiwul dara suñ baa ngi ñaan daal lu ci waay def su ëllëgee yàlla na ko fi gën a man ci barke Serigne Touba Cheikh Ibra Fall xam ni yoon wi nag amul a aw tànk kanam la am loo ci def tey bu ëllëgee da nga gis lu ko raw yàlla moom xam naa ni ñun xamuñu ko waaye ci misaalu li ñu wax yaakaar yaakaar naa yàlla li man fay bor la ci gën a man nee na bu la fayee si jëf bu dee ci bu dee ci jëf ju baax da nga yaakaar lii jëfagoon mukk bu dee safaan bay it da nga naan lii du man ndax ak bay moom dara mënul lu moom kum fay nga xepp ko day sa jëfa rafetul kon nan fas yéene ba na ni seetlu suñu jëf te di ko rafetal te gën a nag doon lee boole suñu bopp te yéene te jàmm ndax benn bopp kat ku ko bëgg a xar ñaar bopp ba ngay xar dana metti su fekkee mën nga ca dara waaye sax doo ko mën waaye kon dañuy bañ a may nag ñu nu bëgg a xar ñaar ñu di lu xar nan laaj ko loolu ñun Baay Faal yi dañuy boole doon benn nan doolee boole suñu bopp te xam Seex Ibra Faal kenn la du doon ñaar mukk Seex Mustafaa Faal yi ñu ngi tey moom suñu mboolu mel na. imam Cheikh Ibrahima Fall ni ci biir kër gii nee na ñaanu góor yàlla waaye cërub saa borom la mu ngi ko jox bu mu dogal ba mu a ci moom keneen ku mu ko dogal ci yow yàlla yéex mën na àgg ci kon nag na ni leen di lu rafet bëgg jàmm te ànd te toppante te ne ci ndigal yi kon jërë ngeen jëf nee ñu ngi jégalu bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdou Latif nee na ñu ngi seere sëriñ Bassirou Mbacke sëriñ Abdou Khadir di sàkku nag mu jàllale leen ñu siyaar bi ci Cheikh Mouhamadul Mountakha nee nuyoom boobu nag dafa dugg ci biir nuyoo kilisaan yii ñun Baay Faal yëpp ñun taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp xanaa ay leeral yu gàtt rek ñoom nee waaye kon du ko doon jar kàddu yi Sëriñ Falilu Faal doon wax kenn mënu cee dolli dara dafa doy sëkk jot na sëkk leer na nañ ñi nee na pastof yi la lool kon sëriñ bi ginnaaw bu la nuyoo siyaare la nee na li ñuy rek moo di ndigal li moom bu ñu ko jëlee ci Cheikh Mouhamadul Mountakha ba nga ko ci jëlee yónni ko ko ni ko na nga ko jot li murid yëpp fu nu mën a nekk danaa njëkk ci njabootu Cheikh Ibra Fall nee na ndaka jëkkit noonu lañ ko ko daan waxe noonu it nga koy waxe nee na noonu it la ko daan defee fu leen ko mas a waxe itam lam ci yëg mooy li mu dégg nii Cheikh Ibra Fall wax ci ndaw lu jóge kër Serigne indil ko ndigal neex kam koy neex ak nam koy façon defee ak bu jëf ja àggee na muy matee nee na mu ci daan dégg lépp day nee na mi ngi koy dund tey jii ci ñi mu tolloo jamono. Serigne Falilou Fall mii kàddu yi mu wax ci turu ay kilifaam yàlla na ko ci taalibe Cheikh Ibra Fall yëpp. nee na ka yooyu da koo dund bu baax a baax nee na moo tax mu mën koo seere ndax mbir ma nga dund la nga ca mën a seere ku ko dundul du ko mën a seere ginnaaw man nag lan indi ko ñu gàttanu ko am mbégte ko jëfe ko jëfin wu rafet wu mat sëkk te seen lool kon war na leen a wax yéen ñi ko yónni woon ni leen ngeen ma yónni woon la ngeen leen digaloon def nañu ko na ngeen ko bëgg woon kon ñooñu itam ñoo ngi sàkku ngeen defal leen seenu bëgg nee na ba mu kawe njort ndax ba mu ko ko yónnee nan daan rek nu ko raw lan waaje jottali ko ñëpp nee ba ñëwee kër Seex Ibra Faal itam fekkoon Sëriñ Seex Jumbu Faal nekkoon fa yoon wi daan jaar ñu jaar ci ba suñu borom ñëwee ak dogalam nangul ko siyaar bi Serigne Cheikh jëmb Fall wàcc ko siyaar bi mu jàll. ginnaaw bi mu liggéeyee liggéey bu ma sëkk bu lool nee ba mu wàccee Serigne Moustapha mii yàlla jotal mu jiitu liggéey bi fa Serigne Cheikh jëmb yemoon fa la Cheikh Moustapha mooy soññi njaboot jëpp. di soññ taalibe yëpp kër yëpp bokk jóg njabootu kër ga ak taalibe yëpp loolu la ko sëriñ Fallou waxe nee da xam ne murid yëpp itam yoon woowu lañ jaar mboolem kun woowoon wuy si nga kër yi seex yi seex yëpp gis nañ wuy si win wuy si Cheikh Ibrahima Fall nag moo jàngale woon nu ñuy liggéeyal sëriñ bi kon ba nga ni liggéey bi kër Cheikh Ibrahima Fall faw mu ñu jàngale ñu liggéeyal sëriñ Touba waaye nag mu dina xamal yow sëriñ bi ñu àndaloo Cheikh Ibrahima liggéey ba ginnaaw ba mu leen wane yoon wax ñu ànd ca ak moom. nee na ñooñu itam seen i njaboot noonee lan ànd liggéey bi nee na àndandoo nañ ko àndandoo mu rafet nee bu ma ci tuddee rek ay barab yu néew mu mottali lépp nee na na gën a démb ma ngi lay yëbil kër sëñ Daaru Assane Ndiaye ñenn ñi si ñëwin wu rafet. ñëw fi ñëwinu matale sëñ daaru asan ba seex na faar wane yoon wa ñetti njëkk a jaar sëñ daaru asan jaay ca la bokk nee na jeexit joojee ba fi mu toll ñoo koy gis nee na ñëpp it noonu lan doxe kër seex yëpp noonu lan doxe ba bisu tey jii waa kër sëriñ Madiba Sylla ña nga liggéeyee te tuukaru Serigne Cheikh Mbacke ba ñu waral koo seetal dem nan fa kon sëriñ bi muri yëpp wuy si nanu ñee na jotaay bii nag ginnaaw tàgge bu nekk day am jàppal diw te yaa ko waxoon ni ko naa njëkk a kër Cheikh Ibra te ñoom ñoom yu rafet bii nee moo tax fii la ñuy mën a wàccee si nga ñaanal fi nekk taalibe yëpp ci barkeb Serigne Mouhamadou Mountakha ci barkeb Serigne Touba aji taalibe yëpp faju nee na fii de daaw ñaanoon nañ fi babat di jeex tàkk xam nañ ni day mi ci yoonu jeex ndax ñun day mësuñu koo ragal lanu sëriñ moom Mountakha jàngaloon te loolu lañ nekk. wéeru ci sëriñ bi. te bàyyee suñu sëriñ bi. dafa séenee liggéeyal sëriñ bi. kon nee na bu ñu seetloo. gis nañ ne barab yu bari. ay jumtukaay yu fegu am na fa. jumtukaay yu faju am na fa. te la gën a méttee. kon de bu fi gën a woyofee. kenn ku ne xamal nga sa bopp ne sëriñ bi kon dañuy gën a rafet njort di gën a wéeru ci sëriñ bi sëriñ bi gën a dox suñu digganteeg lépp lu nu ragal kon day dañuy gën a wax ni dana dem ba jeex tàkk te fii lay njëkk a jeexe su fi jeexee ba noppi nag doo ko jàll feneen fu mu jàll ndax faaw ñu di ko fàttali. mbale nii ci la corona jeexe woon ci mi waaw at yu njëkk mbale mi corona bu masaana màggal ba noppi day bari lool ci ba am ñu ci daan tuumaal màggal gi di wax ni màggal gee fi indi corona ba mu a jeex de nee na ci mbale mii la ko sëriñ bi jeexale ba mu jeex tàkk nee lii yàlla na jeex tàkk rek nee ci sëriñ Muntaxa nag ci bisub xasida boobu nii lam waxoon ni nañ ko defas mooy mbas mi jeex tàkk te ay xewal topp ci te xewal yi na ci ndox jiitu mel na ni ndox mi day kenn dawatutu ko moom xéwal yi it noonu la ci toppee noonu la mas mi jeex a tàkk sëñ Muntaxa ñaan na ko te loolee mu ñaan nag sëriñ bi doo ko defal kon sëriñ Basiru Mbàkke daal bi yaa ngi nii mais liñ leen santoon def nan ko kon liñ bëgg nan ko am ñoom itam li gën ci ñun te xamuñu ko nag. nan ñu ko indil defal ñu ko ñun taalibe yi li gënul ci ñun te xamuñu ko nan ñu ko indil ba mu set sànnil ñu ko mën ko gisati mukk yàlla nañ fi bokk nag teewaat dégg si dégg lépp luy lare ci diggante bi yàlla nañ ci mucc ñun te xéewal bu jóge ci suñu yàlla suñu borom bi wàcc yàlla nañ ci ëpp ñun da ngeen jiitu ñu rek Mbàkke Balla jërë ngeen jëf sëriñ Cheikh Mbacke nee na li sëriñ Fall doon bëgg a na ko. suñ ko bëggee sa suñ ko mayee. nee na suñ ñu ko mayee. xaj na fi. nee xaj na fi. liggéey bi xam ni. liggéey bi xam ni. jëlaat baatu ndigal mujjee na lan nga xam ne moom lan mujjee na ko fa ba jàppoon bis bi ñu ko war a kuule. ci guddi ga yëg lii. ci guddi ga yëg lii. loolu suñ fa di ñaan. loolu sëriñ Falilou di ñaan. suñ ko mayee. suñ ma ko mayee. tey jii la yow ma des nañ. tey jii la yow ma di bisu altine. su ma ci talaata ji. àllarba ja nag. àllarba ja nag. ñu daje fa ñun njabootu Cheikh Rafal bi kuule ko. ndax dañuy bañ dañuy bañ la mu tiim. ndax dañuy bañ la mu tiim. ndax sotti ko ca ndox. mu ayibal feneen. mu ayibal feneen. moo si bëggoon wax ni. moom la sëriñ bi bëggoon a wax ni. ñu wax mbooloo mi loolu. ñu wax mbooloo mi loolu. tey jii la altine. ñu ñëw ñu ñëw rek. talaata àllarba. ñu kuule ko ñu kuule ko. moo la doon doyee si jiili mais. nee na moom la doon doyee sëriñ jiili Fall. waaw bëgg. bëgg. mbooloo moom mi nga xam ne daa nekk seen kanam. mbooloo moom mi nga xam ne seen jiili. da nga daan nekk ci seen kanam. baatum ndigal. ci baatum ndigal bi. bu sëriñ bi xalaatee loolu. bi sëriñ bi xalaatee loolu. ba di ko yëkkati. ba di ko yëkkati. yow ma nekkoon ci kanam mbooloo ma. yow ma nekkoon ci kanam mbooloo ma. nekkal fa say rakk ak say mag. nekkal fa say rakk ak say mag. nga dégg loolu. nga kulaas ba sëñ Ibrahima Fall. kulaas ba sëñ Ibrahima Fall daal ngeen murid yi àllarba la. jàppoon ko bis. mais jàppoon nañu muy àllarba. muy àllarba. te guddi gi nag. te guddi gi nag. suñu borom ñëw dogal yi. suñu borom ñëw ak dogal yi. mu bëgg na kon. mu bëgg na kon. su fi xajee. su fi xajee. jot na ne xaj na fi. nee na jotu nañ ne xaj na fi. ginnaaw suba ci àllarba ji. ginnaaw suba ci àllarba ji. mu daje fan mu daje ñun. àggale loolu ñu tàmbale woon. àggale loolu la ñu tàmbale woon. muy ko feneen na ko feneen ko. safoo ko. safoo ko. te lépp àgg na woon. waaw lépp eggoon na. waaw su su xaj na fi. nee bu fekkee loolu xaj na fi. suñ Cheikh Mbacke Abdou Latif. loolu la ñu waxal jëriñ. loolu la ñuy waxal jëriñ ji. loolu la bëggoon wax. loolu la bëggoon a wax. waaye lañ ci bëgg a jiital nag. waaye lañ ci bëgg a jiital nag. loolu attanul. loolu la attanul. loolu la attanul. loolee mu doon bëgg a jiital sëñ Fallou attanu ko. ah jaa mën nañu ko jaa mën nañu ko yenu lu nekk. nee na ginnaaw mën nañu ko yenu lu nekk nag moom Cheikh Moustapha. nee na li muy sàkku ci moom. day am loo xam ne bu ko waxee ba rëpp. na bàyyi ñu def ko. waaye du du nangu mu wax ko def ko. waaye du nangu nag mu wax ko def ko. day diis day diis. moom bu diisul moom itam. ne bu gisul fi moom. ci bàjj ci bàjj. saa yu si day disul. saa yu si day disul foo ko rek. li mu bëgg a wax li mu bëgg a wax. waaw loolu loolu laa rëy fi moom. mais loolu moo rëy fi moom. li mu bëggoon a jiital ci liggéey bi. li mu bëggoon a jiital ci liggéey bi. loolu at na ko. loolu attan na ko. waaye ndab li ñu yor moo fees. waaye ndab li moo moo moo waral li ko dal dal ko. moo waral li dal dal ko. ñun ñi nga xam ne nag euh, jëluñ nañu. ñun ñi nga xam ne nag jëluñ nañu. ci moom ci moom. mais la ñooy nga xam ni bu doon keneen la ñooy wax. moo tax ñu waxal ko loolu. moo tax ñu waxal ko loolu. jërëjëf yaa ngi dégg loolu. waaw sa bés la wala dégg loolu. li mu bëggoon wax mooy Serigne Cheikh Jumbu Fall. mboolem na seen i tan ak seen kon nanu ko sëriñ bi gën a doole ñaanalal bu baax a baax a baax am nañ yaakaar nag ci ñaan bu baax ni foofu fii mu rek la ko taxoon a jug dana fa dajeeg moom tamit ak bëggam ne jërëjëf Mbacke kon de wax ji nee na ngay fekk dama waaw Fallou Gora daa joxe wàllam ci courage bi jur ñi Cheikh Mouhamadou Bassirou

mu àggale ko nee na loolu kàddu yu ko itteel la yu ko ñor ndax ci barab bi ñu jëm si nee na ko mënoon kenn doyu ko ci ku dul jëmmam ndax fi mu toll ci Seex Ibra Faal nee kon nag loolu nee na dina xeebu moom mii ci jot ni liggéeyam lool waaye kon mu jéem rek nee ba fan ci mën a yem mais li Serigne Cheikh Mbacke mu ngi siy ëpp na sëkk nee na mu ndax mooy xam satul ndigal lu ma Serigne bi ma sa jox ci jamonoy Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ba ci Cheikh Sidil Mokhtar ba ci Cheikh Mouhamadou Mountakha nee na lépp moo doonoon jëwriñ ji. waaw nee dina koy fàttali. ba Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké jëlee liggéey bi te ko ci loxoom boole ko Cheikh Mouhamadou Mountakha nee na mel ni moom mii la ko waxoon ne ko suma sañoon day liggéeyu mare mi bu dee lu mën nekk mu wéyal ko li ci des nag noo ko doxale baax na daana wax nag li tax nag mooy posté fam ak taxawaayam nee na doonul li doon ci man waaye pasteefam moo tax nee loolu rek mooy li am solo ndax yoonu murit moom ci pasteef rek lañ ciy jariñoo kon sëriñ Cheikh Mbacke Abdou Latif sëñ Bassirou nee na sëñ Diourou Ndiaye lay gërëm bu baax a baax ndax li ñuy séntu ci yow ci diggante bii lépp yaa ngi koy matal na ko war a defee loo xam ni. ci kéemaani sëriñ Tuubaa yi la nee nag di nuyu nag sëriñ Fallu kàddu yi nga wax ci turu sëriñ Amdi mi nga xam ne moo fi jëmi maam Cheikh Ibra Fall tey nee na doy na sëkk ay kàddu daanaka buñ ci yemoon mu doy ndax fii moom di kër Cheikh Ibra ñëpp xam nañ leen mm-hmm. du barabu wax barabu jëfukaay la fu ñu àgg rek jëfa leen fa àggale nee na kon ku fi ñëw bu fi sëñ bi yónniwuloon ndaw du yokk dara ci suñ posture waaye du ko wàññi dara ndax fépp fu ngeen nekk ndigalul sëriñ Tuubaa yi moo leen fa bàyyi ndax maam Cheikh Ibra ndax lu ma sa jógee ci sëriñ bi bu agsee andil ko ndigal li la muy njëkk a def mooy yëkkati addiya sant la ndax fa mu nekkoon loola ko fa bàyyi ndax Cheikh Ibra Fall moom dafa bëgg sëriñ Touba ba dara dara desaatu ci ab xolam te sëriñ Touba waxoon ni mahabbati مختار سيدنا حب المهانية والأهلين والولداء دني وأهلي وأولاد الفداه له عبدا خديما له مسكان لي سندا رسول الله صلى الله عليه وسلم دكو فاي شيخ رفال ci serigne touba كنك nee na ñu ngi ñaanal bu baax kilifa gu baax gi fi bàyyi ko muy Serigne Cheikh Jumbu Fall di jàmbaar lool nee na jàmbaar la sax waaye seen maam mooy jàmbaar nee na wax na ko Serigne Fallou léegi nee na mi ngi naan ko sëñ Cheikh day teraay bi yàgg na waaye dara mos ci soppeeku lépp nañ daan def day mel ni. dara jotu ko loolu ak njàmbaar la waaye seen fàggutifu maam la nee na moo ko fàggu ci këram gii ndax la mu liggéeyal Serigne Touba ba Serigne Touba fayeeku ko nee na ci la loolu yi tàbbi kon nee na ñu ngi koy ñaanal bu baax suñu borom dolli ay leeram ca taasuñ ca barkeem nee du ma wax yàlla yërëm ko de. ndax xam naa ni am na ngërëmul yàlla boromam. Hmm. nee na ci lu wóor a wóor nag ca lu dëkk ca liggéeyu jumaa ji ba ni nekk Seex Ibra Faal nee saa su ko sëriñ bi masaa yónni ci moom hmm. da koy yéemu lool fi mu toll ci ay at waaye boo agsee lu ko mën a fekkee hmm. da ngay yëg gi ak pastéef bi ak dogu gi mu ca am moo tax nag aw turam sax na ci histoire ba faw sëñ Cheikh Jëmb Fall ne loolu jëfam moo ko may ndax jëf rek mooy maye dara nee na rawatina kër Cheikh Fall jii nekk ndax kër Cheikh Fall moom seenu taxawaay ci yoon wi nee na boo ko doon xam fooy tàmbalee waaye doo xam fooy yem ci diggam ak sëriñ bi nee mos naa dégg sëriñ Saliou wax ni sëriñ Tuubaa neewoon na ndaxa moos Ibra Fall nii jiitu wu leen ci man dara lu leen ak bëgg ndax yéen ñi toog ñëpp bu ma rëddoon fi aw sàkket a ci kenn faw nga xool buntu booy jaar ba mu def Seex Faal kon Seex Ibra moom yàqinam ci Sëriñ Tuubaa dafa jàll dafa dëggu ndax ngëm nee na sori na lool waaye Seex Ibra ngëmam sikki sàkk da ci amul moo tax mu fab léppam jox ko sëriñ Touba dundam yëpp itam mu jox ko sëriñ Touba amul lenn lu muy ber ca wet ga kon day mel ni sëñ ñax kañ dafa wér nee na jëles nag waxtu wu ne mu di ko wax ci a ak wéetiliku nee na moom day wóor na ko ni nee na yéen ñii yéen ëpp yaakaar ci ñoom moom sëñ Basiru nee na bàyyi Fall lépp yaakaar ci jëmmam te fi mu ko teg fu wér bu yaakaar Sëriñ Tuubaa bu ne sa àjjana sëñ Tuubaa rek nga ci yaakaar nee na kon yéen nag seen lépp bi la te julli na ko lislaam santaane fi ne xam na ni asaka ji defuñu ko

yaakaaruñ dara ci Sëriñ Tuubaa lu dul ëllëg li ci gën a yéeme booy xool li ñuy ci kër Sëriñ Tuubaa ba ci tabaski bi moo ci mujj ki fi nekk doon Cheikh Ibrahima muy Sëriñ Cheikh Jëmb li mu joxe leen ci ay xar mat na junni xar te bokkut kër Cheikh Fall dana kam yi ci des Mm-hmm. sëriñ Amdi Xari Fall nee na noonu la def yeneen kër yi ci des it noonu def nee na bu limee day juum waaye seenu njàmbaar moom ak seen pëseef ak seenu dogu nee na moom day ñeene ci Baay Faal yi mag ku dugg ci biir Baay Faal yi dugg ci suñu da nga xam ne Baye Fall li ñu wax seen diggante Serigne Fall dëgg la ci ñoom ndax kuy tabax ay palais di ko jox Serigne Touba di yëkkati téeméeri ko jox Serigne Touba ba noppi nekk ci barak boo dee woon àdduna ba mu daj gisutoo ko doo ko gis jur ngay wër doo ko gis nee na kon loolu toog feex na nee loolu lu Serigne Touba beral la ñun Baye Fall nee na doy na lu sëkk nag ndam. tamit lu jéemaane lo xam lu bari lu mu ko moy soro bi Serigne fallu tudde Cheikh dafa am nee ñu ko mënoon tudde bari na lool waye lool rek doy na sëkk kon nag nit am solo moy ñi ngi ñaanal Serigne Amdi Fall ak ñi top ci ginnaawam ñu yagg ànd liggéey bi te daje ca ngërëmal Serigne Touba nee na di fàttaliku bu baax nag la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daan wax nee na dañ daan wax ni kër Serigne Touba dafa am bañ kër Cheikh Rafal gii ñu toog am bañ kër Serigne Touba mbañam mooy ñàkk a joxe baatum ndigal kër Cheikh Rafal gii mooy ñàkk a jëfe baatum ndigal nee loolu nag kon. ñaar yëpp daje nañ nee nañ rafetal suñu jot bu baax te xam ni rek jataay bii muy mbali mii ñu sëriñ bi santoon dañuy jiitu ci màggal gi Cheikh Ibrahima Fall mu njëkk a buubal sëriñ bu wax kon dafa delluwaat cosaan nee na ba ca des it Cheikh Ibrahima. lim def ci yoon wi. lim def ci yoon wi. lim liggéeyal Serigne Touba. ba ci ñibbi ci Serigne Touba gi. kenn mënu ko lim. waaye ginnaaw Serigne bi. waaye ginnaaw Serigne bi. bi Cheikh Mouhamadou Moustapha toogee. jataayu Serigne Touba bi. Cheikh Ibra Fall def na ci lu bari. ndax ba tubaab yi jaaxlee. ndax booba Serigne Touba. dafa sol ñëpp ba nu fees. ba kenn gisatul dara kenn ku nekk egg nga ci yàlla sa borom a yéeg bi sëriñ bi ñu bisee é nag ñëpp jaaxle a wóotu ndax sëñ bi batiluwul waxul woon ne kenn may wóotu tubaab yi rek jaaxle ndax ñu mujj ni kilifa yi danoo bari mënuñoo faaw ngeen tànn ci seen biir. faaw ngeen tànn ci seen biir. koo xam ni. moom la ñuy waxal. muy wax ak mbooloo mi. ñu woote am ndaje mu rëy ci njaareem. ci njaareem. booba jàppoon nañ ni. Seex Ibra Faal ci ñoom war a wutu Sëriñ Tuubaa la bokk. ba kilifa yépp teew. Seex Moodu Mustafaa Mbàkke egsi. Seex Ibra Faal mu ngi ñëw. ba mu ne tëll. daal su ma muuraayam su ma ay dàllam àgg suuf tubaab bi ni kon li ma a laaj ba tax ma wóor leen fi jot ci eggale sëñ mënum saa fi nekkoon neen ba ci des a Cheikh Ibrahima Fati jëw nañu sëñ Tuubaa ja ndaje moom woote woon ci béyti ginnaaw sëriñ bi ndax ñooñu ñëpp kenn ku ci dangaa taxaw ginnaaw sëriñ bi taxawaay bu mat wala fa boole fa woo yéen ñëpp ba nu dajee mu wax ni képp koo xam ne rakk nga ci sëriñ bi ñi tam ak nañ ñëw képp koo xam ne mbokk ci sëriñ bi ñi tam ak nañ ñëw képp koo doom la ci sëriñ bi ñi tam ak nañ ñëw képp koo xam ne ab taalibe nga ci sëriñ bi muy seet si nga demal ne mu wuy si daje nag ci këru béy jigéen nee na ba muy agsi nee na baabuy dund la àndaane jox ko Serigne Modou Moustapha Mbacké addiya nee na ku ko taxawu la woon nee na ba ñëpp teewee mu yëkkati kàddu ñu tedd yooyee tàmbalee ci ay rakam daani maam seen Anta maa yow nan yaakaar yàlla te doy na Serigne Touba ne ko nan yaakaar yàlla te doy na Serigne Touba mu wax rek yëpp. mu ñëw ci mbokk yi mu ni ma lumbe muy sëriñ ma lumbe demal liggéey yi su liggéey bi sontoo nga indi ko fi mu ko daan fekk kon wanewaat na aw yoon maam Thierno Birahim mu ñëw ci taalibe yi ci Cheikh Ibra Fall mu ne ko Ibra Fall waneel aw yoon ndax ba ñëpp gërëmee yaa ngi gindi woon ci seen maam lëndëm bu gën a métti nag nga amoon moo fi amaat tey ndax ku daan gis ba gisatul boo gën a dem moo gën a métti kon Cheikh Ibra Fall wane aw yoon Cheikh Ibra Fall wane yoon wi mu ñëw ci rakk yi ci Cheikh Mouhamadou Fadal ni ko Mouhamadou Fadal yaag say rakk topp nañ ci ginnaawam. seen mag a ngi noonu topp nañ ci ginnaawam. daanaka ñun njabootu suñu bàq moo ànd sëriñ yëpp. daanaka ñun njabootu sëriñ bàq ñu am. lu ñu am. topp suñu mag. topp suñu mag moo nu ko may. bu suñu mag. bu suñu mag. seen mag it. mbirum seen mag seen mag gën bàyyi suñu mag. Cheikhul Khadim. bàyyi suñu moo nee gën bàyyi mu wax si sëñ Modou Moustapha ni ko Modou Moustapha say rakk a ngi loolu jiitu ñu topp ci yow xëccoo ay dëkk ak nit amul solo li am solo mooy fexe ba doy nit ñi boo doyee nit ñi fa nekk ñu ñu fekk la fa nee loolu lu mat di fàttali la waaye Mbàkke dina ko fàttali waaye seexi la mbiram soo ci duggee doo xam fooy yem waaye fooy yem ñu yem fa nee na toog na ak seen moom du faadal ca njëriñ sëriñ bi téye nañ ci ak kees ñuy waxtaan sëriñ Moussa Alima man ca jataay ba ñu toog ba ci yàgg Cheikh Mamadou Fadal ne ko Cheikh Ibrahima Fall dafa am tuuti lu ma lay laaj ni ko Serigne Bamba ma xamoon ca Mbàkke Kajoor ak ñi nga xam ci njaarim lan moo leen wutale ni ko damaa bëgg na nga tontu ma waaye bul ma wax waxi daanu kat Cheikh Ibrahima Fall tekk ba ci yàgg ni ko ndax jàng nga masaalik mu ne ko waawoon mu ne ko jàng nga ma waxee mu xuddoos Cheikh Mamadou Fadal ko li ma la doon wax ngi nii damaa bëgg nga tontu ma maam Cheikh Ibra Fall ni teg ba mu yàgg mu ni ko yaari yëf yi gis naa ni soppiku na ci moom muy muuraayu bopp bi ak karo gu weex gi waaye xaw ma leneen soppiku ci jëmm ci nee na fu mu daanee Cheikhul Khadim mi tëdd fukki ak kees jox leen aw ñam ni leen am ngeen jëfandikoo ko. daal ni Ibra Fall ma wan ca Mbàkke Kajoor bi. daal ni Ibra Fall ma wan ca Mbàkke Kajoor bi ak monsieur Ndiaye képp mel na mais. mais bu dee joxe ñam bi. Cheikh Mamadou bëgg bokk ak ñoom. Cheikh la nangu ni. ne ko xaj du bokk ak borom. te mu daaneel rek sëriñ bi ni delluwaat ñu tëdd ci biir boobu fekk sëriñ bi bàyyeegul jëfandikoo góor yàgg ju góor a jël nag la jël ñëw jox ko Seex Ibra Faal ni ko am yow muy sa wàll Seex jël ko gaaw Seex Mamadou Faari di ko xëccoo moom Seex na gaaw wanaasu ko moom nee na gars yi nii mu mel nee na kon Cheikh Ibra Fall nee na xisa boobu ngeen di dégg Serigne Saliou Mbacké daan ko faral di nettali ci sëñ Moussa Aliouma Gueye ca jotaay boobu la ni ko indil ma feggu yi sotti ko te bul ko xool sëñ Moussa Aliouma Gueye sëñ Moussa Aliouma Gueye dem sotti ku ñëwaat. Cheikh Ibra Fall ne ko Moussa muus nga sotti ko te gisoo ko nee na booba loola dara ci njëriñ te ma ñoo fa nekkoon nee na kon ñu yemale foofu waxtaan bi ndax yëg-yëg bi te wóor na ni ku ci sellal te poste fa doon dégg ci yow nee na lu fas luñ ci fas ak loolu ko saf attan na ko xanaa di nu ñaanal lu baax ñu yàgg ànd lu dul Sëriñ Tuubaa bi sunu borom doon nañu kartan ak mu wér ndax booy xool ku ci gën a doon jàmbaar doo ko xam doo ko xam loolu loolu nag sunu maamu ko fàggu ne kon bala ñoo jeexal nan jàng Faatiha ak fukki xul huwa ak benn ndax loolu kat sëriñ sooy bu Mbàkke neewoon na nee na tuyaaba ji rëy na lool daa mel ne ku doon dox ci àll ci diggu ndoloor ba aw mar wu métti dab ba mu jaaxle xamatu lu muy def ñu indil ko njarum soo mu sedd a noonu lay métti ku fi jóge ndaw lu si ñasal faal bëgg fukki ful ak benn nee na moom bi ko bàyyi ko te daal liggéey sëriñ Tuubaa ba ab liggéeyam mat kon nañ ko ko yéene muy Serigne Cheikh Jilou Fall ak mboolem kilifa ñoom fa fekk ak njabootam dëkk nañ ko teel. Serigne bi nee na Cheikh Bass li ci des xanaa li Cheikh Moustapha Fall lu doon wax léegi ci liggéey bi ndax yàlla dafa def sëñ bi yónni woon ko mu ànd ak Serigne Cheikh Abdou Latif ajjuma doon ñu yëngu si ngir bale bi ak màggal gi ak gàmmu gi ñu doog a dellu si waat ci liggéey bi ban fa jógee ajjuma ñetti fan wala ñeent far sëriñ bi wàcc ab liggéey waaye sëriñ Saliou da daan wax ni ab liggéey boo xasee tàmbali day mel ni bisu wiit bi soxlawul bis bu rafet ak bis bu ñaaw kon ndigal li mooy lii rek man ngeen a wéyale noonu ba loola àgg bu ba màggal gi jàll ak gàmmu gi ba jóge Thiès wéyati liggéey ba guddi Seera Faal gi jàll. ba ginnaaw mbalim Touba ma. Moussa Sylla fan yaram. Sëriñ Touba ngeen ci lu wér. Monsieur Ibrahima Fall la. Sëñ Tall monsieur Ibrahima Fall la. waaw dégg nga. Sëñ Tall Fall monsieur Ibrahima Fall la. Ah, waaw waaw jërëjëf jërëjëf.